yaa fattaaxu nga def ko cinq cent fois yaa fattaaxu cinq cent fois waaye boo koy tëj nag bu cinq cent yi matee nga wax yaa fattaaxu iftax lii abwaaba wa sudda anni baaba kulli iftax lii abwaaba kulli xayri wa sudda anni baaba kulli dayri daañu ñaan ci lépp lu baax ku bëgg a jokkook ñun mën nga woote 77 060 96 70 wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil